tey bisu tiis la pour gendarmerie nationale ndaxte tey lañ doon rob ci suba xam naa suivre ngeen ko cérémonie levée euh, cérémonie bi amoon euh, Dakar euh, pour honorer le major Tamsir Sane, bi doon commandé brigade Koumpentoum te ay Samba Boy faatoon ko ci fan yi ñu jall ndax da doon def liggéeyam rek té liggéeyam mo doon sam askan population yi Sam lepp lo xamni euh, ngir euh, population donc euh, bëgg ci profiter aussi pour juste dire qu'en dépit de toutes les circonstances et des douloureuses circonstances la gendarmerie reste toujours debout toujours debout au service de la population mais également dans l'exercice et le respect des lois et règlements population bi invité len ñu jappalé gendarmerie bu baax si dénoncer ñi nga xamni ñoy def ñaawteef boobu parce que ñi ñaawteef boobu dekkunu fenen lu dul suñu biir suñuy dekkando lañ suñuy mag lañ te population bi na xamni euh sécurité si ñom la la doore donc am nañ si walu bu rëy rëy rëy nañ jappalé gendarmerie en tout cas pour euh, ñi nga xamni ñoy def ñaawteef bi ñu tellena gis teg leen si yoon pour le si si euh, championnat interlégion la tradition la at bu nekk ren nag ndar organisé légion nord moo ko organisé la fukki légion ak Ben. yu jóge si réew euh, si pour le football pour Koubou, commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire le général de division Cheikh Sen. avons parlé de la légion hors donc mo gagné ndamli li wante yeneen légion yi fi participé yëpp démérité wuñu def nañ sen lepp ci fair play manam lepp ci po ci Jam ak salam motax tax euh, maa ngi gërëm ñëpp ñi nga xam participé nañ ci championnat bi parti nañ participé nañ ci réussite championnat bi